xalaatal ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ana nan la ñuy def ba am seen xëy mu njëkk ak nan la ñuy def ba mënal seen bopp maanaam mën a taxawal seen yëf waaye nag ci biir loolee président ba ñu yëw daal di wax ne ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi soxla nañ ku leen gunge dinañu leen xalaatal ci seen ëllëg ministre Dame Diop moom nag la nga xam ne moom la wax bokk na ci daal ci biir système éducatif bi war nañu see def li nga xam ne maanaam moom mooy culture entrepreneuriale loolee dina tax maanaam ndaw ñi gën a mën a am liggéey moom ministre bi daat nay wax ne ñi nga xam ne ñooy am ay diplôme ñëpp ak yi nga xam ne am na si lu ñu spécialisé mobilisé wa ñooñu ñëpp état bu Sénégal mënuñu leen a jël président Mbagnick nangu ne Sénégal am na ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum xëy comme ni mu amee ci yeneen réew yi nga xam ne maanaam ñoo ngi développé ndax li ko waral ci Sénégal bokk na ci sunu croissance économique bi mu munta jël mbooleem ñi nga xam ne ay ndaw lañ ba pare amee ay diplôme patronat bu Sénégal nag li nga xam ne moo ko war ci ndaw ñi mooy nag gunge leen di leen di xelal loolee mooy rôlam njàng mu kawe mi moom nag la mu xamle nee na mbooleem li nga xamante ni daal ay licence la danañu ko professionnaliser nee na nag lëkkaloo bi nga xam ne am na diggante nguur gi ak privé bi dañu koo war a gën a yokk yéen kaay gii di Vox Populi ñu koy fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekki nee na neexul ba neexul waaye nag Macky Sall dafa tële Macky Sall ci boppam moo tële ma yu Mamadou Lamine Diallo la nee na Macky Sall ngir nag mu lijjanti réew mi ba réew mi ne coog dina ko jafe kaay gii de la témoin nee na njiitu réew Sall wax na nee na lu toll ci quatre cent cinquante milliards dina ko génne ngir ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi waaye nag économiste yi daat nañu koy càmbar gis nañ rëq-rëq ya nga xamante ni maanaam ñu ko sa nemmeeko ku ci mel ni Meissa Babou ak économiste bii di Mansour Samb ñoom nag nee nañu nii nga xam ne moom la ko état bi waxee ni nga xam ne moom la wax ne maanaam moom la koy jëfandikoo ngir ndaw ñi am xëy maanaam mbir ma laj ji natt demagul fenn yéen a kaay gii di Vox Populi ñu koy fekk fa Thierno Alice Sy Pastef Mermoz daan nay wax ne Sonko jamono ji nag maanaam mooy adversaire numéro Sall yéen a kaay ko di nee na am na benn collectif boo xam ne ay jigéen la ëmb ñoom nag nee nañu tey ji jii danañu dox doxum ñaxtu ndax dañuy soutenir ki nga xam ne maanaam mooy Adji Sarr yéen a kaay gii xëy duñu xibaar naan ñu États-Unis ba léegi ñoo ngi sëkkatal Sénégal ngir nag Sénégal wàccoo ak ak ak yelleefu ñi nga xam ne ay borom ñaari tur yi lañu yéen a kaay gii di ñu fekk fa Fatou Mbacké Diagne di ab responsable APR Pikine Nord nee na Macky dafa fàtte ñi nga xam ne ñooy waa Pikine Nord yéen a kaay gii di réew mi quotidien nee na nee na ñu ma ngi wàññeeku ci Sénégal waaye nag jamono ji relâchement bi nga xam ne gis nañ ko fi jéggi na dayo maanaam gis ku takk masque jamono ji mën nañoo wax ne doom ji góor la rassemblement yi ma ngi am good fin na rawatina nag ñi nga xam ne ñooy def ay activité politique nee ma mitin yi ca jamono jooje nag grande mosquée bu ndakaaru maanaam dañu koo tëj a kaay gi du na ci yi nga xam ne dañu koy meublé ba pare di ko loué kër yooyu nag jamono ji ñooy concurrence ak hôtel yi ndax bëri na ñoo xam ne léegi ci kër yi nga xam ne moom la ñu meublé fa la ñuy dem maanaam di fa dalloo ndax nag ñenn ñi nee nañu kër yi nga ne dañu koy meublé maanaam daal moo gën a yomb ba pare confortable na yéen a bu mag la ndax yi seen seeni mbir dañu koo teg ci yoon te ñi nga xam ne ñooy luwe ay kër maanaam teguñu seeni mbir ci yoon yéen kaay gii de la sa nee na gii jëm ci wàllu wér gi yaram gi ñoom nag nee daal danañu déposé ab de grève ne ay accord la woon ñu déggoo woon ci ak nguurug Sénégal ba léegi amul lenn ci jëfee yéen kaay gi nee na yi nga xam ne ñu nekk ci université bu Ziguinchor ñoom nag dem nañu ab grève ba pare bloqué li nga xam ne mooy examen yi la ko waral dañoo toog lu toll si juróom benn weer yoo xam ne kenn fayu leen yéen kaay na liggéeykat yi